na am na am na am na am na xam nga loolu langage yu euh, syndicat la quoi mooy comme nu ñu titré si kaw crise à la RTS xam nga bu ñu nee crise naxaat naxaat tuuti nga bu ñu waxee tey jii ku tok fële deglu da yaakaaroon ni RTS ñu ngi si ay moments yu difficile manam voilà donc moo tax ma ni xëy na loolu dafa nek langage li nga xamné nak modi modi di moo syndicaliste à chaque fois du ñuy employé parce que boy xol seen première phrase du ñu wax crise à la RTS ñom situation bu ñu njëkk aborder bu ñu aborder crise ba paré soog wax yenen parce que directeur ñëw am li nga xamné nak modi moo di prérogative di nommer di licencier di yok di wàññi

est-ce que Pape a droit à l'erreur xam nga la moo tax. moom euh, nomination bi bu juróon polémique bu rëy. mën nañ mën naa ne nomination yëpp bu Pape Alé Niang ëpp polémique est-ce que tey Pape Alé Niang a droit à l'erreur est-ce ne polémique yooyu moo mu bëgg. wan ñi nga xamante ñoom ñooy ay njiitam que ni kat jub juboo jubbanteeg transparence bi ngeen woote dama koy gérer parce que na Pape Alé Niang ñëpp nee nañ dafa incapable.

jàpp nañ Pape Alé dafa d'accord dàq contractuel yi ñett jàpp nañ Pape Alé dafa suspendre gëna xamni tam do ni ko doon nañ ko manam l'accord d'entreprise ñent jàpp nañ Pape Alé dafa une prime prestation yi ba ci cent mille francs ñentel ba nak ñom japonais nañ Pape Alé Niang dafa supprimer exactement ces fonds communs alors une situation de crise qui s'annonce à la RTS sous la gestion du nouveau directeur général de Pape Alignan ma ni crise bu bees mu fay euh, bëgg li nga xam nekk que euh, mu le collège des délégués ni déclarer la guerre à Pape Alignan maman Moussa Niang moo ko daal di jiite mu présentateur euh, bu journal télévisé bu journal télévisé moo koy di amal exactement alors donc Serigne. -hmm. mu toll Pape Alé li mu bëgg RTS euh, la télévision ak personnel ba fa nekk pareeguñu pour daal koy supporter on se pose cette question à savoir est-ce que concrètement le Sénégalais en personne prenne pour un changement. non dama ne la Pape arañal Niang la ma koy conseiller ak di ko encouragé mooy na jusqu'au bout. mais sëriñ ñi ñu koy menacer. non quelles que soient les menaces en tout cas le peuple sénégalais ne le menacera jamais ci l'anglais, bi. sur cet hmm. angle là. Hmm. il faut rationaliser. Il y a des dépenses exorbitantes au niveau des entreprises. Notamment l'entreprise euh, euh, RTS. dañu avons ci politique de rupture. Si hmm. demee ci une entreprise yi nga xam état moo ko mais da ngay gis ni il y a des privilèges yu ñu defal ay nit te amaluñ njëriñ boîte boobu. amaluñ leen benn njëriñ. xam nga man toujours dama faral di wax ni. Hmm. les gens les gens refusent le développement. ils n'acceptent pas les conditions. Hmm bo demee AID bi lolo fam Cheikh Bamba djey hmm. vocation bi la djel bi pap Alé Niang tay privilège yu bëree ba daf ko war bëgg bañ mais ñu ngay def ay collectif pour contrecarrer ko pendant ce temps là le reste du peuple sénégalais souffre non dama né nak nañu waxanté deug motax mané la amul ragat hmm. amul denn ginaaw il faut rationaliser les dépenses de l'État ce qui se passe à la RTS c'est du n'importe quoi loolu taxone mané quand pap Alé arrivé à la tête de, de, de, cette euh, grande hmm. entreprise de presse-là, hmm. ce que j'avais dit, mon donné, nous devons des réformes systémiques, des réformes profondes. Parce que ce qui se passe à la RTS, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Un budget colossal. Si vous fait un fonctionnement au RTS.

lolu moy am RTS RTS am na ñoo xam nitu Racine Talla lañ Racine Talla moo leen privilège, privilégié ñu amoon foofa. Hmm. foog ñu jema bañ bañ lu. est-ce que yaa ngi la rek commencement la mu ngi mel rek état situation bi mu ak boulanger yi finalement les boulangers dañu ginnaaw tu as vu moo tax ni Pape amul ragal. si lii parce que lii c'est une exigence de la part du peuple sénégalais. il faut rationaliser les dépenses de l'État xaalis boobu am na fu mu xaj nit souffrir souffrir dund bi ñu bëgg mu prix courant bi lepp mais ñu jël ay nit privilèges véritablement rek ñoo pour clore ce sujet là je suis totalement en phase avec je suis totalement en phase avec lui.

On n'a pas besoin, il n'a pas besoin de, communiquer quoi. Qu'est-ce qu'il va dire Limite de ça s'inscrit dans la légalité. Le président de la république sant. lolo premier ministre sant. L'inat, il parce que c'est des intérêts qui sont menacés quand même. C'est des intérêts qui sont menacés. Hmm. man je suis en principe je suis d'accord. Merci. Je suis en principe. <laughs> Merci. Ouais. Euh, euh, mais Maki, il faut que vous ayez 5 000, 700, 800, et tant d'autres. Et tant d'autres. Euh, Pape Ale, vous avez décidé décider euh, dorénavant appliquer euh, ce que vous loi 2005. Quelle euh, loi est-ce que vous méritez Tu vous exactement manam euh, salaire yi dang koy méngale ak euh, li administration publique bi di fayeeku ku si que légui d'autres amati avantage ay maa RTS li la fayeeku et d'autres et d'autres alors euh, japp nañ dina xoolaat li nga xam que moo na nga non ni itam salaire yi euh, mais tamit lolu est-ce que tamit peut-être aujourd'hui ñu amal ay discussion allant dans ce sens justement peut-être journalistes yi ñi fa techniciens yaa ngi fa gardiens et d'autres et d'autres mais quand même mu neen trouver d'autres mois tay ñu gis

boo ko déggee tiitu da ngay dellu <laughs> di hmm. waaw duñ du ñàkk léegi ci kanam euh, dinañ ubbi ligne bi parce que euh, gars yi ñu ngi bëgg a joxe seen seen gis-gis euh, ci li am fii ci biir RTS en tout cas ñu ngi ñu ngi ñu ngi teewlu ba tey li nga xam ne nag moo di bile bile AG pour rek bu mu daal di génnee mën a jàkkaarloog sénégalais yi waxtaan aussi ak li nga xam ne moom moo di presse bi ginnaaw bu ñu amalee seen assemblée général lan mooy doon seen décision pour contrecarrer ki nga xam nag moom la Pape ñaa jël comme ñoom nuñ ko daal di waxee ci li nga xam ne nag moo di seen euh, communiqué waaye aussi taxaw nañ fii euh, yëkkati ay kaddu jagleel ki nga xam ne nag mooy Papa Alia dem sax ba di ko wax Papa Alia torsion xamagu nu nag xam nga yow dafa nekk ay voilà lan moo si top en tout cas bu nu génnee loolu yëpp dina daal di reer en tout cas Papa Alia moom jël na li nga xam ne nag